Heavyweights.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 ma ne yëf yooyu mujj naa ci loxo yi yoon de ba élément commissariat bu Mor yi dal di teg loxo góor gi di ko toppee lu ñu naan viol ci ab xale bu jigéen bu ndaw ba mu jaare fa wann lor ëskay góor gi nag bi ñu ko tegee loxo ci kanamu yoon dafa weddi ba tëdd ci naaj bi ne li ñu koy jiiñ amul dal di ciy teg ne moom ci boppam dafa yom maanaam tële te loolu noonu nag ñu bëri dal di nañ koy xam ci moom ah na benn témoin bu ñu convoqué bi mu ñëwee dafa seede dëggal ne góor gi li muy wax dëgg la dafa tële ndax am na 62 ans te ba léegi amul doom <laughs> ah si loolu nag ci la élément commissaire yu Mor Ngom bu Jurbel yi tal di nay kon foog ñu def test buy wane ne li góor gi di wax am na wala amul tubaab di ko wax test d'érection ba loolu sax la ñu mujjee def ci hôpital bu Jurbel waaye bi résultat yi génnee leneen la wane de ndax résultat yi li mu wane mooy ma ne góor gi lépp good fine naka noonu ci la ko enquêteurs yi dal di sëkkatale góor gi dal di ne benn yoon rek la ma sa yegg ci kaw xale bu ndaw boobu am ay waay bi ñu ko laajee nag noo def ba xamante xale bi nee na xale bi a élève la famem ñoo ko doon yónni ci moom muy defar looy ventilateur naka noonu ci la ko doon mayee ay 2000 ak i 3000 ki ab xale bu ndaw di daaneel góor gi nag mooy xale bu ndaw bu jigéen bi dafa feebar ba ñu ko enoo yóbbu hôpital bi ñu ko xoolee gis ne xale bi dafa wann lor xale bi bi ñu ko laajee kan moo la wann loo lor ci la dal di joxoñee góor moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax waa ji ab jardinier la waaye moom it mu def ëpp na dee ndax moom it dafa yekk ci ab xale bu ndaw bu am 13 ans waaye réew mi xanaa dañoo feebar dal di détourné xale bi sax mu jugi def ko ab objet sexuel am jardinier boobu nee nañu Mauritanie la doon dem ngir uti fo liggéey naka noonu ci la ñëw installé ci village bu ñu nan taatu ca village boobu ñu naan taatu nag la defee njombeem lu rëy ndax foofu lañu fekk daal koy bett li tubaab naan flagrant délit moom ab xale bu jigéen bi am 13 ans leen nijaay ji bettee ci la dal di song ji ma ne budul woon village waa yi jardinier bi du génn kër gi ak bakkan coow li dal di takkarnaase ma ne ba jardinier bi biñ koy génne kër gi génnewu fa ak mbubb génnewu fa ak tubay im réew li ci gën a doy waar waa ji bi ba rawale ko ci guddi gi bi muy génn di dem beneen village jóge ca ngir dem ci village bu ñu naan yéeri malel dafa contacté xale bu jigéen bu ndaw bi xale bu jigéen bi daal di ñëw ñoom ñaar ñu ànd daw ay waay cay waay mim réew xale bu am treize ans topp góor àndandoo daw man suñu njaboot yi rëcc nañ ñu waaye ku xoolul sa njaboot di ko yónni fii ak faak fii ak faa ñu koy